jërëjëf noo fa ak foo ñuy woowee. bon <laughs> waaw man nekk waa. d'accord. loolu manœuvre yi nga ne amoon na fi pour les pour pour une nouvelle fois reporter élection yi. Mm. xam nga il faut que les Sénégalais soient conscients de quelque chose. Mm. parce que Sénégal je pense que dañu xaw gaaw fàtte. ok. mais suñu fàttalikoo tuuti c'est damay damay damay déggaat li may wax moo tax mu xaw a compliqué si man. ah d'accord donc bu ngeen ko mënee dimbali si retour bi écho bi muy am. voilà uh-huh. donc euh, xam nga Sénégal bu ñu fàttalikoo tuuti si ginnaaw. Mm-hmm. Karim Wade a été emprisonné. Mm-hmm. mais ñun ñëpp xam nañ ni que le protocole de Rebeuss que Karim Wade a signé avant de quitter ce pays mais ce protocole là. lui exiger de plus revenir sur le territoire sénégalais pendant que Macky Sall toujours au pouvoir. Ah protocole de Rebeuss boobu bu ñu koy signé. Hmm. Karim Wade on devait l'exclure de tout ce politique sur le territoire sénégalais ñoom ñii di scandale le nom de Karim Wade bëgg mu ñëwaat pour bokkaat ci élection yi. Hmm. mais ñoom ñoo tëdd ci alalu Karim Wade. ñoo tëdd ci ay këram ñooy dawal ay otoom ñoo yore ay compte courant mais ñooñu en réalité sax ils ne même pas que Karim rentre c'est-à-dire que c'est un scénario qu'ils ont fait pour essayer de se dédouaner que ils ont tout fait pour que le petit puisse revenir mm. sur la seen politique alors que ñoom au fond de hmm. am na ñu fi dëkk ci ay kër yoo xamante ne yaa ngi romb di lay ñee hmm. ay kër Karim Wade la ñu topp et c'est des grandes personnalités de ce pays pour Karim Wade ñibbisi sax ñoom jaral na leen leneen ak leneen pour sawaay ba ñu ñibbisi parce que bu jiwaay yi ñëwee ñu torox. Mm. donc gis nga Sénégal. Mm. il faut pas nous prendre pour nous demeurer ñu on sait vraiment ce qui se passe beneen aspect bu gën a politique mooy que les gars de PDS. Mm. c'est des gens qui ont essayé de cacher de cacher leur honte face à cette incapacité de trouver un plan bi pour pour le PDS alors que ñoom ison ont reçu le PDS comme un legs gis nga PDS li mu def ci Sénégal fii mm-hmm. pendant depuis l'indépendance ba tey nekk la premier parti politique boo xamante ne c'est le premier parti d'opposition Abdoulaye Wade mëne ko xeex ak Senghor xeex ak Abdou Diouf ñëw ba toog fi pendant douze ans liggéey fi lu mucc ayib jël parti bi teg ko seen loxo ñoom ñu jël parti bi dugal ko ci gudd bu mel nii kenn sañul toog ne kii mooy suñu plan B kenn sañul toog ne war nañu am plan B ku ko def ñu génnee la ci parti bi mm-hmm. ñu ñëw ba tey traîner une honte ne une incapacité ah ne traîner traîner benn affaire boo xam ne ñëw ba fii bëgg ci tënk sénégalais yi mm-hmm. mais mais mais ça c'est c'est très grave te te defe naa ne nag bu élection yi passé nii il faut ñu jublu fi ñoom parce que ils ont essayé des manœuvres de déstabilisation du pays pour cacher une honte et essayer de montrer qu'ils font tout pour que Karim Wade revienne te ñoom seen biir ñoom ñoo tëdd ci ay alalam di dawal ay otoom tey mu ñëw sax arrangé wu leen hmm. donc il faut pas ñuy jël sénégalais di leen dugal ci ay seen bopp yoo xamante ne ñu on a tout compris okay. on est très jeune mais on connaît l'histoire waaw loolu laa bëggoon fàttali gars yi Mm-hmm. xam nga franchement c'est une situation qui a failli déstabiliser cet état donc yii la ñu war a jàppee comme des appels à l'insurrection mm-hmm. lii la ñu war a jàppee comme comme des manœuvres terroristes parce que lii manœuvre terroriste la ah. mm. manœuvre terroriste la parce que lii bu jàlloon tey kenn xamul lan moo mën a xew ci biir dëkk bi fii ak jeunesse bi ñu gis waaw élection moom ñu ko dàqaatoon du jur jàmm ça c'est voilà mënul woon jur jàmm mm. heureusement que que quand on dit Cour suprême c'est pas c'est pas parce qu'on dit cour suprême est-ce que c'est la cour la plus haute du Sénégal okay. cour suprême ci suufu conseil constitutionnel la nekk parce que conseil constitutionnel moom mooy vérifier moom mooy ñu ko moom mooy contrôler le contrôleur mm cour suprême bi des fois ñoom suprême bi moo leen ciy nax. ok ñu foog ne lépp cour suprême mun na ko àtte alors que cour suprême amul benn prérogative si kaw conseil constitutionnel. d'accord d'accord voilà franchement di leen remercier bu baax. génn ko Sonko ak Bassirou Diomaye Faye loo si xalaat. bon loolu moom lu normal la. ok xam nga génn Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dañu ne l'amnistie leur a remis dans leur droit. Mhm. mais ñooñu yàlla moo leen delloo si seen ay droit. mun la teg paaka sa put rendi la rendi bi jàllul mu bàyyi la ñu ne il a sauvé. Hmm. il a voulu te tuer mais ça n'a pas marché. D'accord. ils ont manipulé la justice pour les tuer ils ont encore utiliser la justice pour les libérer donc su seen justice pour les tuer boobu jàlloon. Hmm. tey kenn waxatul seen wax donc yàlla moo rétablir dëgg hmm. ñun loolu la ñu te incha allahu rabbi gis nga. am na loo xamante ne sax bëgguma ko di wax parce que les gens peuvent le prendre comme des comme des comme des comme propos fanatiques et cetera. Mm-hmm. mais yonente yàlla Moussa bi muy xeex ak Firawna mm-hmm. dafa jékki-jékki si biir mission mu am gat-gat mm-hmm. mu ne sunu borom man kat damaa bëggoon comme dama damaa damaa. sama làmmiñ dafa taq. sama làmmiñ taq sama frère bii doo ko def yonente mu dugg ci xeex bi ñu ànd ñun ñaar xeex. mooy Basiru ak Jomaay. maa ngi libéré ligne bi jërë jëf. Mhm, jërëjëf jërëjëf euh, loolu am na solo jàngat la bu am solo aussi mun ngeen def ni moom woote ci 77 810 90 90 wax seen xalaat ci actualité bi mais aussi rebondissement yi ci am bokk na ci libération wu Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñu ñëw indi une nouvelle touche ci campagne électorale bi notamment euh, seen caravane démb yi yéen a ngi gis noonu image yi mais aussi caravane ku mel ni Khalifa Ababacar Sall pour dire que les candidats sont sur souhaite que l'élection ne se tienne pas euh, suñu super fan Ibrahima Pleya mi ngi wax ne kon waa PDS ba léegi bàyyeeguñu ñu ngi préparer une proposition de loi pour euh, changer le conseil constitutionnel en une cour euh, constitutionnelle ils n'ont pas encore fini loolu ñoom sax wax nañu ko wax nañu ne justement ñoo ngi ci en plus de la plainte bi ñu annoncé contre Amadou Ba et certains magistrats du conseil constitutionnel mu mel ni nous allons vers une semaine aussi de rebondissement lu nekk mun na am maintenant est-ce que ça pour faire effet ba yóbbu ñu ci ñu dàq élection présidentielle bi on mais un gros point d'interrogation en attendant ñu ci yegg mais yéen certainement am ngeen ci seen euh, gis-gis euh, mun ngeen ci àddu euh, ci 77 810. 90